ah lu mu ci daa taxawoo rek xam lu may wax tout rek man maa seen mag man maa leen boot seen bés suma bés la te ma seen Pikine moo ko ñor waaw man Pikine laay fayatal du dëgg ama ah, dama koy ñaanal mu nekk roi des booy ñaan dama koy ñaanal mu daan jël bu gaaw parce que man ba may toog di wax nii euh, Pikine am nañ relève boobu amaana man xale bu tuuti laa du dëgg voilà boobu ba léegi tamit aussi sant yàlla parce que li gënoon métti mooy nga toll ci moment bi ci làmb ba pare sa ginnaaw xam mu oyof mais ay nekk na ay ay ay ay champion yu mag yu saf sàpp nag waaw du ma def lu ñaanal leen xam nga ama maa ngi koy ñaanal ndam xam nga mu jëlee mu revanche booy ñaa maa ngi koy ñaanal tamit aussi mu daan jël bu gaaw incha allah yàlla mun na ko. non du ma ko moytuloo dara amul lu muy moytu ci moom làmb mbër boo demee bay moytu ci moom dara rek des nga quoi. waaw mbër waroo xam lu lay gaañ ak lu dul gaañ ok mbër boo pare waroo ragal dara waaw man yàgg naa ñëw ci làmb sama adversaire toj xaal man jël ko lekk waaye du ma la faale sax waaw yooyu moom mbër moom ama gisuma lu ragal ci moom ah sérieusement du xeex bu du bëri bi la mais Boy Niang bis tu leen dépassé parce que am nañ mbooloo Pikine a ngi seen ginnaaw ok ba pare tam aussi différence bi rek mooy roi des arènes bi ak ñàkk nekk roi bi mais seen combat day fees del combat gënu ko rëy comme yàgg nañu bëri événement non mu liggéey rek bu paree moom gis nañ ni gisuñu leen lu war a mën a tax lu ko mën a xañ dama na liggéey mu préparé ci lépp ah ci wàllu lépp galaaj ak lépp parce que làmb loolu boo mënee bëre te mënoo xeex da toogee soo bëggee bëri te amoo fit da ngay bàyyi soo bëggee bëri te amoo gàllaaj tamit aussi lu dem mbër dafay complet quoi bu lépp matee moom non bu ñu tëddee dañuy nelaw amuñu dara ñu xaar te xam naa ni ñu ko sekk ku ci mel la waaw li ci war a nekk da ci nekk ñun tamit aussi lu ci mën dinañ ko ci def bu laajee contact lu mu laaj rek dinañ ko ci jàppale ji lépp moom ak Boy Niang daal vraiment xam nga gis nañu ay champion lañ xam nga toll nañ fi gars yi toll toll nañ fi gars yi toll ah waaye te dañuy indi kenn gënu lañu yaatu ginnaaw te li ñuy wax ci mbëri mu ngi si ñoom waaw di leen ñaanal daal maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di gërëm sama rakk yii gërëm waa kër gi sama kër ndijaay ji maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant lépp ñoom la waaye Eumeu Sène mii desalu ci ñu dara dara la desalu un lii mu ñëw fii tey jii moom moo ñu gënal téeméeri junni yoon ndax fii su kër maamam a ngi nii maa ak maamam ñoon ñoo fi nekkoon ak samay rakk yii ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla tamit Pape Sarr ku sonn su ay mbër la woon pikin gii li mu fi def dafa noo naan benn doomu aadama defu ko mbër bu fi yeewoo di bëri Pape taxawal na ay oto Pape defal na ay tiset li mu waroon a defal Eumeu Sène su mbër yi fi newoon la ko defal Pape defal na fi mbër gaare fi ay oto defal fi ay tiset mbër ma yóbbu ko police am na wàlla déet yéen laay laaj muy baabooy yóbbu na ko police fii ay ndijaayam a ko taxaw te lu mu ko defalul amul mu xañ ñu ko xañ ko ay mbokkam di ko defal ay mbër waaye Eumeu seen mi gàcce ngaalaama dañ koy ñaanal yàlla rek di ko gërëm di ko sant di sant samay rakk yi di sant ay ndijaayam di sant waa kër gi di sant Cheikh Fall mi nga xam ne da Pape Sarr da koo tuddee doom xale la waaye sant yàlla bu baax di sant sama rakk yi ñoon aaw de ñoon xaw a pend kulum da ngay juum ñoo ko yaatal ba mu yaatu Eumeu Sène yal na ko yàlla may yeneen victoire yu ëpp victoire yi mu amoon dañ koy ñaanal yàlla bu baax parce que ni mu téyee Pape Sarr ak Pape Sarr ni mu ko téye man nii di ndeyam ak samay mboq xam nañu xam nañu bu baax bu baax bu baax digganteem ak Pape Sarr dañuy ñaan yàlla ak yonent bi yàlla may ko yeneen combat yu sut combat yi mu amoon allahuma salli ala se waaye Pape Sarr mii tamit dama koy ñaanal mosul mhm. lekk dara bàyyi ma mosul mhm. lekk dara bàyyi ma amul lu mu poraatu ak lu mu am dina daw ñëw indil ma ragal day xañe wërsëg mm-hmm. waaye ndeyam ji ah sant yàlla bu baax papaam moo jiitu de waaye li papaam doon def yépp mu ngi koy def su man dañ koy ñaanal yàlla rek di ko gën a ñaanal yàlla di ko gën a ñaanal yàlla yal na leen yàlla yàlla dimbali yàlla ànd bi yal na ko yàlla eggal noonu non li ma li ma li li sama yaay wax nii dama doon toog ci tele bi di ko wax ñu bëri di ma weddi samay mbokk yaa ngi nii ñii mun nañ ma jur ñii maa leen mag ñii fekkee nañu ñii fekkee nañu te ci làmb yooyu ma doon am danaal am ay blessures yu am ci kër gi ay damb-damb yu doon am yoo xamante ne après ñun ñii ak samay mbokk yi ñoom Cheikh Fall yi ñooy dem faji ji li may dund nii man rek maa koy dund ci kër gi li may dund nii bëgg ko nii man kese maa ko bëgg fii ci kër gi dëgg sama yaay am na sax lu mu bàyyi mais amul benn mbër bu ma guddulul bëccëgu ma bëccëgu ma leen mais ñëpp a ma fay lu baax laa la wax ba mu des baaboo yi Ama Baldé suma rakk la taxawu na ma sa sama yaay ngi nii ah loolu daf koo metti torop torop sama mboq yi bu nekk loolu aw ma mboq yi ba tey kenn waxatuma bàyyi naa mu sedd nag dinaa bàyyi parce tey sama yaay moo dugg si cadre boobu bàyyi naa bëggatu mu woon sax di wax waxam mais dañ daan dañ ma daan taxaw di wax ci moom ñu tege dam koy sosal dégg nga moom la man waruma woon wax sax si moom mais diggante papay baabooy la ak suma papa suma maam la baat fii ci buntu kër gi ak sama ñoom papa mu ñu bokk benn service mu nekkoon suñu papa suñu waajur ma koy ñaanal baaboo yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw dégg nga man tey lu ma lu ma lu ma pertoon yëpp jëmm ji fay na ma ko ak sama rakk yi fi nekk dégg nga di ñaanal suñu rakk ñi am combat yàlla na ko yàlla def roi des arènes muy amaa Baldé di ñaanal booy Niang tamit yàlla na ko yàlla may ndam ñun loolu la ñu xam maa ngi gërëm nag suma nijaay bi jógee États-Unis mu ngi nii muy Ibou Sarr suma nijaay la di gërëm bu baax Cheikh Fall kii seetaanuma benn yoon maa ko mag fuuf sama nijaay la mais man seetaanuma benn yoon suma nijaay la suma mooy xam nga mu naa wax moo gën a nekk xam nga góor xale ci kër gi mais wax dëgg yàlla dam man dam koo def kilifa billaahi ak awdi lobaat kër gi daal mënuma lim ñëpp kowri kowri lobaat ñoom ñëpp euh, Pape Sarr mënul tricher Pape Sarr du bu duggee ci dara rek day dem ba jeex loolu moo tax ne lu nekk wax na ko ko lu nekk ñàkk na ko ndax làmb Eumeu Sène fi mu ñëw fii koñam la parce que fii la fii la fay la màggee fii la yaroo koñ bi koñu làmb la parce que am na boo fii en face kër Lobaat bi am na ku fi dee ndax làmb pël la kër pël ku fi dee ndax làmb kër gi am na ñu fi damm ndax làmb damm waa kër gi dem faji te ku xale bu ndaw bu ñu fi donc Pape Sarr comme li ma la rek du du tricher benn yoon de ce fait que relation ma ko Eumeu seen du tey te Omar Sène thème bi defe naa ni que koñ bi fii mu ngi ñëw ci kër kër kër nit ku mag ñu Lobaat Mamadou Birane Hamady Mari Ndiopa Thiokor Lobaat xam ngeen ko ak cité Lobaat amul lu mu def lu pour Pikine Omar Sène ni mu bëggee Pikine ñëpp ko xam Pape Sarr noonu la bëggee Pikine Pape a dañuy wax ni que sànq sax xaw ma mu ñu wax ni que Omar euh, Pape Sarr euh, nitu Pikine la mais nag Pape Sarr c'est vrai mais y a une mention spéciale Pape dafa nekk. lu Eumeu Sène bëgg a bëgg rek Pape Sarr bëgg na ko du ko jiitu ci dara du ko mujjee ci dara aussi dañ koy gërëm di ko sant Eumeu yàlla na ko yàlla may ay victoire yu bëree bëree bëree bëri. Pape euh, sama doom la ki jur yaayam ak sama pap ñoo bokk benn baay maamam di Rabi sama papa di Lobaat ñoo bokk benn baay donc sama doom la voilà donc euh, maa ngi doon wax ne Eumeu ñu lay dalal jàmm fii ci biir kër gi. Euh, sa kër la yàgg sa staff ak journaliste yi fi nekk ñëpp ak membre yëpp ñu fi nekk ñu ngi leen di dalal jàmm euh, di kontaan aussi ci sa visite bi comme ni nga ko waxee rek visite bi moo ñu gënal loo gis euh, lii lépp li ko waral mooy suñu doom ji nga xamante ne dañ koo ñaanal nee nañu bu ne diw baax na laaj ko ay mbokkam Pape Sarr bi dafa di xale boo xamante ne dafa yem ci ay loxo waajuram bëgg nit mosul am ak benn nit problème xol bu rafet la yore lit euh, nag jaral ku lu nekk comme ni ko yaayam waxee rek commencé wul ci Eumeu Sène dafa commencé ci Baaboo Baaboo nekkoon koo xamante ne moom ak papam ñoo doon liggéey ci benn société papam nekkoon sama xaritu papa doon fi ñëw am lu amoon seen diggante yàlla def mu jàll euh, yàlla nag comme ni ko kii waxee rek neen euh, ragal a féetoo day xañu wërsëg mu wane mbëggeelam mag Eumeu Sène ba mu jeex tàkk reculé wu ci benn yoon parce que nee nañu nit boo ko bëggee da ngay dem ba mu jeex lépp loo xamante ne rek ñëw na dala ciy fekk nekk nag xale bu baax ñun bu ñuy ñaanal euh, bàyyiwul yaayam benn yoon euh, Pape Sarr bu woote woon fii koñ bépp day fees keroog mu naan ki def fii ñëw ma ne ko bu ko yëgal parce que xam nga ni nga mel ci koñ bi xam nga ni nga mel ci nit ñi boo ne ëmmat seen def fii ñëw tey te kenn du xeej ci koñ bi moom moo tax tey bu ngeen gisee sax tey euh, Pikine yëpp génnuñu c'est parce que ñu bëri yëguñu ko même kii euh, euh, nu mu euh, moom Pape Sarr il s'est pour la lutte il s'est sacrifié pour la lutte lutte jaral ku lu nekk ñàkk na alalam te Pape Sarr waroon na dépassé stade bi mu nekk nii mais lutte moom moo ko jaral lu lu nekk day def ay loo xamante ne sax xëy nag ki nga xamante ne moom lay jàppale du ko yëg nekk nit bu baax mais Eumeu seen lépp loo jàppoon Pape ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay waajuram xam ni mu mel ci yow gën koo jàppaat parce que toppeewul la ndax intérêt parce que lutteurs yi mu topp yi mu àndal yëpp bu fekkoon am am xëy na génn na ci lit yàgg na mais daf la bëgg yow tamit nga bëgg ko nga bëgg ndeyam bii sa jabar bëgg ndeyam bii nit nag bu buggee sa yaay danga koy bëgg